jaa ngeen jëf télévision DTV ñu amati mbégte ci seen émission de la rédaction débat am di bi DTV sujet d'actualité mu soxal wàllum euh, foncier ci am ci Sénégal dégg Sénégal ay bakkan sax di ci ndax mbirum suuf ci sax wala sax état jël am liggéey yu mu war a def ci barab mu jur ay gàllankoor ba ay xeexoo ay xeexoo ko yooyu am ba mu jur jafe-jafe yu bëree bëri loolu lépp tax tey DTV nit dañuy waxtaanee wàllu guni mel woo ci ni ñuy woy ay victimes ndax tey dañoo dalal ci plateau bi mbooleem bànqaas yu mag yi nga xam te ne bi ñoo ne ci Sénégal na li wër Ndakaaru ndax ay jafe-jafe ci wàllum dëkkuwaay bari na fi lool mu am ñu nangu seeni suuf ñi fekk dañoo wax ba noppi yaa di koy toj tabax noppi yaa koy yàq nag mu doon ay pertement yu méttee métti yoo xam jot na ko jur

boo xam tam bari na problème ci wàllum suuf muy mbirum kër yaak ak yàq gën ko yàqoon waaye tam ñu am beneen victime di baara ki nga xam mooy kon Babacar Badji Babacar Badji moom itam di collectif victime Tivaouane Peul kon daal tey Sénégal bu ñu xoolee bangaa si am yëngu-yëngu teewal suuf lañ seqal waxtaan bala ñuy tàmbali nag ngir leeral amoon nañu yéeneem ñi li nga xam mooy waa état di nguur gi bokk ci plateau bi waaye def nañ kem kattan ngir ñu bokk ci ñoom kenn ci ñoom ñëw ci plateau waaye mu jëwul sotti doonoon jokkoo ak ñu mel ni waa CNDT muy commission nationale du dialogue des territoires kam moo ko jiite woon demul si yàlla si fëgg nañ fi ba sonn ngir am ko ñu fa représenté waaye mu jëwul sotti ci fi nga xam mooy suñu plateau dama leen di boole mbooleem nuyoo bi yéen samay invité gërëm Diass maa ngi lay nuyu. sant yàlla bu baax ñu nga fa. ñu ngi leen di nuyu tamit di leen jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci invitation bi nga xamante ne may ngeen ñu ko tey jii. merci beaucoup Mbaye <laughs> ba tey à côté ma dem ci Badji aha Badji yow te awoon pël ndakam foofu ma ngay am coow. waaw ma ngay am coow ñu ngi lay ziar. Mhm. ñu ngi lay nuyu Sénégal. du nuyu victime yëpp victime tuwaan pël yëpp. Mhm. bàyyiwuñu kenn amul xaaj seen. di kontaan ci li nga ñu invité sa émission. Mhm. ñam occasion mun a wax ak askanu Sénégal. ñu nekk xam lu xew ci Sénégal. wax tamit ak état. wax ak état surtout. Mhm. waaw voilà jaajëf daañu ñëw léegi caw incha allah gën ko xóotal ma dem ci Baara Sow Baara nga jógee ca Géejawaay gàddaay yéen itam foofu am problème ci àllum suuf ngeen boole seen bopp ci ak kuréel ngir sàmm seen àq. waaw jërëjëf euh, ñu ngi lay sant. Euh, di ginnaaw bi ñu la nuyoo ba pare ñuy remercier kër gi parce que fii miin nañ ko. Mhm. avant ñuy am suñu jugement jaar nañ fii yaakaar naa émission boobu décanté na lu bëri si suñu dossier. Mhm. kon dañ leen di remercier di remercier presse Sénégal yëpp. loolu mooy taxawaay DTV jàppale jàppale nañ ñu. Mhm. Euh, di sant aussi waa collectif de Gàddaay ñi nga xam ne aussi euh, taxaw nañ rawatina bureau bi nga xam ne ñoo ma tey jii ma ñëw fii. ci seen kàddu laay waxee ñu ngi leen di remercier di leen nuyu ñoom ñëpp eh, di wax na fii daal fi leen lépp di leere bëgg nañ daal Sénégal yi seetaan xam li nga xam ne mooy nekk si réew mi te am ñoo xam ne teguñu ko fenn fu dul doole ak xaalis

maa nuyu suñu Mbacke wax ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam. di nuyu di tàmbali suñu nuyu bi borom kër gi. Mm-hmm. di la remercier si invitation bi. merci dugguleet nag wax dëgg yàlla macha allah. Mm-hmm. am na taxawaay boo xam ne taxawaay gi taxaw ngeen ko askan bi. te loolu feeñ na résultat yi am. Mm-hmm. wane na ko. donc di nuyu téléspectateur yëpp ñu seetaan. di nuyu également sunu mbokk naataango yi toog si plateau bi. ak équipe bi nga àndal di leen assalamu alaykum di ñaan ñu tambal bismillahir rahmanir rahim. jeexal alhamdullilah amin tabarakal ci wax lay defandi première question barki démb amal ngeen manifestation le 29 septembre la won lan mo war lon deug deug ci manifestation bobu leen dañuy dem seetaan ben élément Ibrahima Fall ñëwaatoon na ci bobu manifestation bu ko defé ñu dogu ñëwaat ci plateau bi ndax moy jukki lu barim lu waral plateau bi tay ñetti waxtu taftal juróom fukki simili ak juróom-ñett ñu dajalo ci boulevard centenaire. gannaaw et simili ñu de di immobilier mu di secteur bu bëri ay problème lool ñu delloo leen seen àq ak seen yelleef mooy lu ñuy laaj tey. askan bi tolof tolof yu mag jànkonteel nañ ko ci wàllu dëkkuwaay boo xoolee tey senegal y' a plus de plus de dix mille dix mille familles victimes dans le cadre du wax ni. secteur la boo xam ne li tax mu mel noonu parce que tey jàpp nañu mooy besoin prioritaire sénégalais. boo xam ne chaque jour chaque jour dañuy gis euh, ay ay naxaate ay arnaque ay escroquerie ci suuf si dégg nga sénégalais yi dañuy jël seen xaalis teg ko pour jënd suuf jënd jënd terrain pour mun ci dugal seen famille mais lu ñuy gis chaque fois euh, dañuy dañuy dañuy lekk seen xaalis après du ñu gis dara kenn du jot kayit moo tax loolu loolu la ñu bëgg xeex. ñañu tuumaal ci yàqu-yàqu te mbir mi bokk na ci ñi jege lool. loolu la ñu njort njort nañu ñooñu ba ñu am ñu leen taxawal ci biir nguur gi te du ñu feeñ ba nga xam ne su leen jàppee ñu war leen teg yoon euh, ñu fexe ba ñu rëcc. jigéen ñi ñoom la ñuy laaj mooy ñu jox leen seeni kër yi nga xamante ni dañu ko yeyoo. location yu seer torop weer ñaar fukki junni ku ci mel ni man comme ni ma ko waxee léegi maa ngi yore fukki doom ak juróom ñii ngi ci balcon yi ñii ngi tëdd ci perron yi may takk ay sànke ay yoo di leen maat loolu yëpp na ñàkk dëkkuwaay ko waral ñu ñaan monsieur Macky ak képp ñu mën a jàppale ñu utal ay terrain utal ñu fu ñu dëkk sonn nañ torop sonn nañ torop ñun jigéen ñi ñu jël xaalis bi dem yóbbu ko aji imo ñu lii ñu daal nii daal nii fi ma lekk ni damay luwee man ak sama njaboot yëpp dégg nga te man maay maa maa sama doom yi liggéeyuñu man maay maay dem maay jaay su ma jaayee ma ñëw togg di togg añ di togg reer dégg nga lii ñu am nii nii si terrain yi la yaakaar. lu ëpp junniy doomi aadama loru ci mbir mi bu ñu ko xaymaa mu nekk ñaari milliards ak téeméeri million ci suñu koppar juróom-ñaari junniy doomu aadama yu bokk ci mbir yi di jàppale fanweeri junniy yi ñoo nekk ci njàqare tiis tey jii loole waral tey jii ñu naan lu ëpp tuuru. Ibrahim Fall jaajëf mi ngi nonu ñoo gisando mboolem plateau bi gis ngeen élément bi nga xam mo daw sang ci yow lay dess Aline Badara Gueye nga doon président fédération nationale des victimes lépp jëm ci coowal suuf li tax seen manifestation bi am Ben la ci problème ngeen dund xal li ngeen dund ci ay problème manifestation bi da woné ni ben pogn la bo doon nat mbooleem Sénégal général no gisem tollu wayu mbirum suuf avant ñu ci mbirum immobilier yi. ñu ngi remercier encore une fois ci jotaay bi. donc di wax ni bu ma woowee ci lu mel nii dama ciy am mbégte loolu macha allah. parce que mbir mi la histoire quand même. am na histoire yàgg na. boo xool talof talof yi. ñu ngi commencé depuis bi libéraliser secteur foncier muy 2006. promoteur privé daal di ñëw. dudd comme ay boutique. ay bari lool bari lool amul benn kuréel bu leen tënk. maanaam amul benn aspect juridique. bu neex waaye rek ñëw taxawal ni immobilier laa yore. ba pare jaar si.

wane ay euh, batiment macha allah architecture yu rafet ci tale ak un peu partout. Mhm. dafay publicité nit ñi ñëw adhéré ci programme bi. lool bi mu amee bu mu ko bë mënee tënk rek dafa laal euh, promoteur yu bëri. Mhm. muy Namora muy SCAT Afrique muy Agir Imo muy Daday muy yeneen ak ñeneen. Mhm. bëri na kenn mënu leen lim. waay macha allah bi loolu amee nit ñi jug nañu nag. jug nañu dugal ay plainte depuis 2008 ñu dugal ay plainte. plainte yi di bëre tribunal plainte yi di bëre police.

ba immobilier bëgg def leen neex. bëgg bëgg a wax. Mhm. da leen appuyer sax booy sept ah bon parce que Ben instant en 2010 2009 2008 par exemple. si l'état avait réagi maanaam bi plainte yi duggee loolu alerte alerte la ba état avait réagi nous na ñoo 2009 la ñu versé ay centaines de personnes versé en 2010 ñeneen ñu versé 2011. il a fallu que 2012 ñun ñu ñëw ñu maintenant nu ñuy def comme agir moom dañu jël ay nit tax téye de ci buntu bi ku ñëw ñun la ñii di ak lii la def loolu moo arrêté mbir donc victime c'est si boppam. Mhm. arrêté activité société bi. kon état li ngeen def ci plainte lépp Nous fenn. le fenn ba 2012. mais c'est grave. le fenn ba 2012 il a fallu nous créer collectif bi. Mm-hmm. en 2012 parce que en 2006 la ba 2011. 2012. collectif yi daal di jug mhm. loolu bu amee. Mhm. mu am benn pàcc buy jëfandikoo koom-koomu askanu te ko ci doole état mi li ko seetaan kon dafa am ca état moo amay manquement ci wàllum organisation ay réforme doxalin bu wér bu jaar ci yoon. Mhm. buy mën tax ba suuf ci Sénégal tegu ci yoon ku ci war am am ci ku koy doxal tam dox ci leeraange. effectivement manquement am na ci. ñàkk euh, suivi am na ci. waaye tamit am na yenn lu ci am. parce que ku mel la.

donc pour wane ne xëy na yoon mi ngi dox. ci réew mi xëy na daf ko tek ci connexion yi mu amoon. parce que ñu mel noonu dañuy am ay complice au plus haut niveau de la république il faut le dire. ñaata ci ay victimes. bu dee pàcc bi soxal agir immobilier. ñaata victime la concerné. agir immo mën naa wax ni concerné na plus de trois mille victimes mën naa wax ni ba tey ba démb du moins nit ñaa ngi.

la justice wax ni nañ ko jox askan bi ñi nga xam ne ñoom lañ tooñ ñu gis gum bokk. 3 mhm. milliards yooyu contrainte par corps maanaam dañuy téye waaj si prison bi. Mhm. gëstu alalam récupérer xaalis bi delloo ko. Mhm. am na na procès ñu waxoon dañuy fay fu mu toll ndax am na avancement ana waa ji moom. waa jaa ngi prison mi ngi prison ba tey. ma ngi prison ba tey. waaye lépp lu jëm si biens yi alal beeg yooyu loolu amul benn benn jéego. bu ci am dara bu ci am. jéego bi ci am. xëy na ñun ñoo ko génne. maanaam ñu ñoo dem di gëstu mhm. ci alalu nit ki waaw ndax ay koppar génn gun na ñu tàmbali joxe ndàmpaay dara génnul ñun koy gis nañ koppar fu mel ni gouvernance mhm. fekk nañ fa benn titre foncier boo xam ne dañuy wax cause d'expropriation euh, pour cause d'utilité publique maanaam dafa amoon benn titre foncier bu ndaw mhm. boo xam ne autoroute à péage dafa jaar war ko jox ndàmpaay xaalis ba nekk fa ñu dem gis ko bi ñu ko gisee bi bind nañu demande de saisie conservatoire jox ko justice pour alal boobu ñu téye ko téye ko fi toll nii kon téye nañ ko dugal nañ daal demande bi donc pour wax ni daal mhm. ñun ndegam ñun ñoo mën gis loolu donc dañ jàpp ni état bi nga xam ne mooy administrer justice mhm. ah bu su dugalee loxoom am nañ yaakaar waa ji alal bi mu denc nañ ko génne te am na alal bi mu denc voilà loolu dañ ci ñëwaat léegi ndax li fi dee lii ak problème bi ngeen toll tey mhm. loolu day wane ne kon Sénégal dafa am jafe-jafe dëgg ci wàllum suuf ngeen ko war a yore moo xam état ci lépp état xëy ne mooy ndey mbi ligi mhm. moo tax bëggoon nañ loolu ndaw état toogoon tey ci plateau bi waaye mu jëwul sotti doon te dañ ko jëm ba sonn mhm. waaye du si tamit ñoom bu fekkee ñu ngi suivre mën nañoo réagir à travers sunu antenne mbaa ñu amaat occasion toog ak ñoom fii ci plateau bi ngir indi seen tontu ci li nga xam ne ngeen koy wax tey ndax faaw ay kàddu jip jëm ci ñoom ndax jàpp nañ ni lu bari tay am problème état moy responsable damay jóge ci yow ah, dem ci ki nga xam modi euh, bara bara yow yang ngi gaday dafa melni gaday amul len problème ak xëy agence immobilier waye ku ngeen amul problème lan moy problème mu gaday deug deug ba tax ngeen taxawal collectif ay téeméeri téeméer borom kër ñak seen kër tabaxone ba paré ñu mabbu ko seen mbir fu mu toll tey ak lu moy seen problème deug deug d'abord ok ñun ñu ngi remercier plateau bi di la remercier ak ñi ñu ko bokkal ñëpp. Mm-hmm. comme ni ñu ko waxee woon. Je remercie aussi souci susi su réew euh, susi su Sénégal bu crédible vraiment les ñu wonagul dal na suñu xel Ben promoteur le bu tudd Babacar Fall di mm-hmm. Mbaye Fall euh, dañu jënd foofu mu doon ay 4 hectares et demi ñu continuer de ko tabax di ko tabax mu xëy benn bis rek drame indi ay ndiraanam ak ay gendarme ñu encadré Fofu. ñu ñëw laaj leen ana ordonnance bi nga xam ne moo jógee tribunal ñu ne ay ordre lañ lañ reçu ñu laaj leen lan moo waral toj bi ba tey si suba amul si lañ ko porte plainte au niveau du tribunal avant plainte yi am bi ngeen di am seen terrain ba Babacar Fall bi ngay wax ñu koy wax mbay ñëw di ko toj mm-hmm. yéen seen terrain ndax ngeen ko amee woon suñu terrain ni ñu ko amee mooy mooy foofu euh, treize hectares et demi la. Mhm. famille Ndiobène ñoo ko moom. ñoom ñoo ko jaay aussi. famille Ndiobène ñoo ko jaay neuf hectares yi. yi nga xam ne sans euh, neuf hectares et yi nga xam ne changé na ko ba titre ko si turam. Mhm. mu desoon quatre hectares d' après famille Ndiobène moom sax lam lañ ko neuf hectares yi fayaguñ ba fayagu ko ba mat desal na leen xaalis. Mhm. déjà famille Ndiobène defoon pronotation pour bloquer 4 hectares yi famille Ndiobène ki nga xam ne moo amoon procréation bi muy Pape Diop nga xam ne famille Ndiobène bu kii yor njaay mi bu nelawee keneen dañuy ñëw famille bi daje ñu defal Diop euh, Pape Diop ñoom foofu bàyyi moo fa am man bi may jënd dama dem domaine vérifier ñu ne ma baay bi famille Ndiobène ñoo ko moom def nga vérification waaw def naa avant may jënd. ñu ni famille Ndiobène ñoo ko moom ko moom. Baab Diop avant ma koy jox sama xaalis ma ne ko lan mooy firnde ne famille Ndiobène ñoo la mandaté pour mu jaay mu won ma benn euh, procuration par notaire. ma ne kon lu leer la. ma jënd jël document yooyu dem uti autorisation de construire. bi mhm. ma amee autorisation de construire laa ñëw tabax sama kër. mosuñu maa woo tribunal ne ma fi ngay tabax moomoo musu ñu ma jox sommation ne ma dañuy toj si foofu. Mhm. mu xëy xëy rek ñu dem màggal Touba deux jours avant màggal mu ñëw encadré foofu toj ko ci jaay doole. moom xanaa joxe na preuve teg na ko fu leer ndax màbb ay këru jàmbur bala nga ko mën a def dana fekk nga am preuve boo teg sa loxo ba a def loolu. ma ne la tribunal laaj nañ ko ana acte de vente bi nga am pour 4 hectares yi wane wu ko laaj nañ ko ana. Nous avons fait une ordonnance a pour démolir faux ba tey Quand ko kon kay preuve. dem ngeen justice. dem justice. condamné le a une justice. les quatorze passés. À renvoi. am mon, puisque renvoi. Mhm. mais nous avons une ko. condamné ko deux ferme. Mhm. plus un mandat d'arrêt contre parcours. ñu ngi koy topp teg loxo maanaam nga wax waaw parce que 3 milliards ñu ngi ko koy topp mais mi ngi këram di def ay conférence de presse di menacer nit ñi jàppaguñ ko. defal ndànk baaraam dem ngeen justice. Mhm. yoon atte. Mhm. ngeen taxaw ci kanamu attekaay bi. Mhm. yoon war a tëj. condamné na muy deux ans baara muy muy muy Babacar Fall. deux ans ferme war a koo tëj ñaari atu kaso. war a fay alamaan ñaata milliards. presque 3 milliards et quelques. daanaka ñetti milliards. waaw boobaak léegi. téwut mom mi ngi teud këram mi këram ba paré di organiser conférence de presse di menacer nit ñi. li ah ñu wax naan feeg fukki fan dina ñëw masalé fofu ñukoy xaar ba mu waxé fukki fan ak lég lég mo 20 jours mais gisaguñ ko. sànq baara nee nga man dama wolu justice bu Sénégal. Mhm. ba sax ya ngi koy gërëm di ko féliciter. Mhm. ah yoon até ni nan jël dogal bi. Mhm. dogal bi amul application. lu xew. waaw comme tribunal aussi dafa nekkoon congé ñuy déglu rek. jugement bi samedi lay am 1 mois. ñuy xaar bu juge bi reprendre ak procureur yi ñu xol ba xam mandat d'arrêt bi dinañ ko continuer. dem jëli ko arrêté ko buñ koy deful tamit ñun ñu continuer combat bi. wa parce que digënté bi ngay wax ni. ñakul ni kon appel dafa am. ay avocat bu ñu dugalee appel le <clears throat> euh, tribunal dogal mom duñ ko mën jëfandikoo gun il faut ñu xool appel bi attewaat ko devant la barre. waaw appel ñu mën xam. man lool léruma uh-huh. euh lima lér dal moy euh amna mandat d'arrêt. Uh-huh. bo xamné war nañ ko arrêter condamné nañ ko 200 cent ferme. ba tay mi ngi tëdd këram ak ñom seen mi ngi tëdd këram. Uh-huh. ba paré ci biir loolu muy organiser ay conférence de presse. voilà euh, ñaata ngeen toll yéen victime mu euh ñi ngi ci 253 familles. ñaari téeméer ak juróom ak ñetti famille ak ñetti famille ñoo ah. fa nekk ci gàddaay te cas social yi dafa bëri. c'est-à-dire maanaam dafa bari ñu sonn am na jigéen ñoo xam ne seen boroom kër day faatu ñu jaay kër ga. Mm-hmm. lam fa amoon si sumul ak ay doomam lay ñëw jënde foofu commencé tabax am na ñoo xam sax dañoo dëkk amuñuy bunt. Mm-hmm. ñu xëy maasale loolu am na ñoo xam ne ay retraité lañ si lañ amoon na ku si néew si lañ ko def am na ñoo xam ne dañoo leb banque. am naa benn femme boo xam ne tamit ay see la tudd jëkkëram mi ngi Canada moom dafa jëndoon ñaari terrain jëkkëram jaay ko benn xaritam Canada mm-hmm. le temps que waa ji ñëw ñu toj foofu ndaw si dugal nañ ko deux fois prison këram gi mu dëkkoon la mujj jaay trente et quelques millions remboursé kooko fi ne day luwe. Mm-hmm. mais doy na waar. seen lu mat sept personnes ñàkk nañ seen bakkan. sept personnes yu faatu. yu faatu yoo xam ne amoon nañ say kër ñaata at la toll seen jàppal bàyyi la. mi ngi tolloo ñeenti at. ñeenti at. te dafa wóolu dooleem wóolu xaalisam. wax na sax ne bu ma daanoo ngand yu bëri daanu. ah bon. yàgg na koo wax du ma mës a daanu bu ma daanoo ngand yu bëri daanu. voilà dana ñëwaat foofu yeggale problème waa gàddaay dañ doon campé débat bi première partie bi ak yow pour xam situation wu gàddaay fu ngeen toll tey damay dem ci benn côté bi muy euh, Badji euh, Badji Babacar euh, yéen itam Tivaouane Peulh dafa mel ni bukki bi matt waa gàddaay de moo xori waa Tivaouane Peulh Tivaouane Peulh moom lan mooy seen problème dëgg-dëgg jëmetuñ càllum suuf waaw gannaaw bu ñu sant suñu borom julli ci yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant sëñ Touba sëñ Saliou Mbacké mhm. sëñ Sidi Mokhtar le euh, Sénégal nga wax la du Sénégal. Mhm. en particulier le premier magistrat du Sénégal le président de tous les Sénégalais Mouy mhm. Macky ñun Tivaouane Peulh dañu xëy suba rek sans sommation ñu dal le mhm. sans décision de justice ñu xey suba ay tracteur ñew daaneel kër yi. loolu ndax la mën a nekkee. kan mo sañ loolu. Ah. xëy rek maa bu kër jàmbur noonu. ñi ko def ñoo ko sañ. kan moo ko def. Agirut laa mun a joxoñ baaraam tuuma parce que ñoom ñoo yore projet boobu. Agirut men. ñoom ñoo war a defar tali parce que ñun ñu ngi nekk ci kaw fu ñu nekk d' abord domaine national la. Mhm. ba pare ñu ngi nekkoon fi VDN bi war a jaar ak côtière bi autorité publique la ñun mënuñu ko bañ. d'accord nañu gaay ñew dind suñu kër. ndox chantier fo la réellement talibé fo foo jaar. mais est ce que tali soxla domaine national exactement est ce que talibé mënu woon jaar feneen. jëlal nañu 100 mètres yobu suñu kër. daaneel sur 42 deux kilomètres. or man lima féké fekkee. ñu natt ko sama kanam. tali dañ ko dugaloon ci bir filaaw entre les deux bandes parce que motoon na il y' a plus de 100 mètres wala rallye par Dakar doon jaar. Mhm. préfet bu mu fa ñëwee ci waxam dox nañu ak waa Ageroute ak waa Descot def mhm. inspection dem sur 4 kilomètres xool gis ni kër yaa ngi fi. ci lu mu waxoon. Mhm. balaa ñu doon def dara dañu waroon def commission d'impense boo xamante ni moom moo ko war a jiite moom préfet parce que moom mooy patron bi moom mooy diriger moom mooy créer commission bi. moom moo koy installer moom mooy ñëw xam nga def état des lieux sur le terrain malheureusement jusqu'ici ñu koy xaar defu ko. ñu koy naxarlu trop trop trop trop trop trop trop trop trop trop trop trop nit ñi ñi dañoo tabax dëkk ñi tabax àggagul ñi def seen i fondation ñi def seen clôture ñi tabaxoon dëkk dañ lay fekk sa kër génnee la ci biti sa kanamu doom taxaw kooku ne moo gën a gaaw bu kii moom it bu dóoree ñaari doon kër gi àgg suuf. mooy oto yu dëgër mag yi bulldozer yi. waaw borom. waaw furci bu def nii bulldozer yi rek pelle bi waaw.

gendarmerie bu Samba Diéry Diallo. Mhm. bi ma ñëwee dañ ma détends-toi lu ñu def ni c'est sous l'ordre du président de la république dafa bëgg ñu régler problème bi nu mu gëna a c'est urgence de pour ñu régler problème bi. Mhm. mais malheureusement jusqu'à nos jours nit ñaa ngi daw nit ñaa ngi sonn. Mhm. nit ñi tayi nañu. man daal kenn xamul. mais li ngay wax dafa xaw a grave man bu ma xamee lu mel ni Ageroute. nga xam c'est l'État. mu dem di toj ay kër xanaa dina xool même fekkente ni état moom ci dëgg la Sénégal domaine national la suuf si doon état bu soxla fu yoon war a jaar mu lu ñëpp bokk war na ko mën a jëfandikoo mais dana am étude de terrain xool ay ndàmpaay war naa mën a am jox la sommation daañu soxla fii li fekk deux li fekk trois mois. Mhm. jox mais loolu loolu lépp dara amu ci. xam nga moom xam nga ñoom dañuy confondre xam nga xam nga quand on parle d' état l' état c' est eux. Mhm. c' est nous c' est vous c' est ceux qui sont. bien sûr bien sûr ñu nekk seen ñu ñoom ñoo bokk benn état bi. Mhm. mais boo demee école am na ñu mën jàng am ñoo xam ne ay nullards la ñu. man je pense qu' ils sont nuls. ñu asserut waaw.

bu rombee lan war investir ci mbirum travaux yi. dañu cay boole waale calculer aussi ndàmpaay yi war a jox li nga xam ñooy suuf si fa mais y' a 103 milliards du tout yoo xam uniquement pour pour pour pour pour pour pour dédommager. Ah, nit ñi la am information bobo 103 milliards. oui. Mhm. mieux dem nañ toog ministre Babacar Gueye. Mhm. qu'on remercie beaucoup au passage parce que dugal na ci loxoom te mu ngi duggee loxoom ba léegi mbir baa ngi avancé ñu ngi koy sant moom it di ko mhm. le premier ministre mi ngi waaj def.

nga donn ko dem bàyyi ko fi sa rakk donn ko mhm. keneen keneen donn ko naan daal suufu maam waaw nga ñëw viabiliser du kenn moom ko domaine national ñun ñëpp ko bokk nga dem mairie ut say kayit am suñu naan sa sa délibération globale mhm. uti sa promoteur fay ko par rapport li ngeen déggoo mu ñëw defal la morcellement jox la sa plan de morcellement mhm. nga commencé jaay ma sàmba ndax tam lii nekkul mooy seen problème ñu bari ah. Hmm. parce que booy xool comme ni dal waa Gaday. Hmm. dëgg la domaine national la sama moo ko doon bay depuis hmm. des décennies wala sax des siècles. jóge na fii sët doon na ko tey dagg na jaay. mais loolu ndax nekkut ni mooy problème mu mbirum suuf. ci mais dagg jaay ah, kayit dama ne. délibération globale kayit la délibération kayit la. délibération mooy kayitu judd. mais ban façon kayit lañ la jox ndax dañ laa jox permis d'occupation wala dañ laa jox titre foncier wala dañ la jox. dë dëgg loolu dama ne délibération. délibération ah kayit la dama bëgg nga gën njëkk comprendre loolu ba pare uh-huh. nu titre foncier nekkee kayit uh-huh. noonu la délibération nekkee kayit uh-huh. parce que balaa nga am titre foncier il faut di nga am délibération ñëw ci bàyyi dem titre foncier délibération boobu ngay am hmm? balaa nga koy am bu ñu nattee sa terrain mairie day conseil municipal bu conseil approuvé mu dem préfecture préfet cacheté signé mu dellu si nga fay sa impôt ñu jox la sa kayit donc c'est un acte administratif bu kenn mënul dindi. <laughs> kenn mënul jël leneen di ko teg ci kawam. loolu ci ngeen sukkandiku. ba jàpp ni foofu yéen a ko moom. ndax fay war naa mën a am ginnaaw bi ñu yàqee seen i kër. ci lu wér voilà naa ci ñëwaat léegi incha allah ci yow ñu gën a defaat turu taal bi baal ma dem ci waa jas jas ñoom itam dafa mel ni daal daanaka Sénégal fépp ay métti. ndax boo gisee ban tàmbalee ba léegi gox boo ci dem ci lii benn parti kese la. ci ñi am problème mu suuf ci biir Sénégal daanaka bari barine, beaucoup de boo ko doon def ay émission xam naa boo invité gox yëpp kon da nga am salle bu Grand Théâtre xam pour am victime yëpp ci benn plateau mais sëñ Diass yow c'est sëñ Seckam ah, mhm. c'est ngeen am benn collectif ngir war a suufu Diass mhm. lan mooy problème Diass d'abord ndax yene bokk même problème même cas ak waa Gàddaay ak wa waa Tivaouane merci beaucoup encore une fois ma ngi leen di remercier bu baax a di gërëm di sant bu euh débat bi nga xamante ne ni vraiment invité ngeen ñu ci tey jii pour ñu war a mën a waxtaanee li aju ci mbirum suuf ndax ñëpp xam nañ ne tey Sénégal suuf problème la boo xamante ne ni kenn mënatu ko nattat nattat nattab la mhm, mhm. alors ci loolu eh, wax nga ko sànq fépp métti ci wàllu suuf mhm. tey jii nii au niveau de jas ñun problème bi nga xamante ne ni moom moo moom la ñu am principalement mooy eh, li nga xamante ne ni aéroport bi ñëw na fii ci jas ñëw aéroport bi c'est vrai que dafa nekk loo xamante ne pour Sénégal gépp la dafa nekk tamit investissement boo xamante ne ni bu am solo la bu rëy bu ñëpp vraiment content mais malheureusement population de Diass ba léegi fi mu toll nii dañu nekk ci njàqare nekk ci pourquoi parce que tout simplement dafa ñëw mu occuper le plus xamante ne ni alors souffle la ci biir Diass ci xayma boo xoolee par exemple la bi bi ñuy xalaat jëkk eh, aéroport bi mhm. dafa am ay surface yoo xamante ne ni fa la ñu déparé woon waaye nag li ñu gën a jaaxal mooy suuf si dafay taaweeku taaweeku ba dem ci dimension boo xamante ne ni finalement dootoo xamante exactement fan la. maanaam li nga bëgg a wax mooy dañoo soxloon benn espace pour aéroport bi. Mhm. ba dagg ko finalement lan waxoon ci kilomètre carré dafa dem ba yokk ko. nga bëgg a wax <laughs> ñaata espace la lañ soxloon pour aéroport merci au tout départ dañu déparé ak 2600 euh, hectares te 2600 hectares yooyu li tax ñu doon ko xalaat moo di ne aéroportu dakaar bii dafa nekk 1500 hectares hmm. ñu xalaataat ñu ne war nañu yokk aéroportu jas ba mu toll foo xamante ne ëllëg benn problème du mën a am moo tax ñu xalaat ñu ne donc danañ ci yokkaat

4000 hectares boo xamante ne nii 2000 et quelque àgg ba 4000 hectares. àgg ba 4000 hectares. alors ci kaw loolu aussi ñu demati ba ñu ne c'est 8000 hectares. Ah bon bi nga xamante ne yooyu yëpp am na. te ñi nga xamante ne nii ñoo gardé woon suuf si parce que nag bu ñuy wax domaine national war nañu xam ne baykat mm-hmm. bu téyee suuf rek. suuf sa nam koy téye moo tax ba nit bu ko gisee mu xam ne kat fii suuf la waaye boo ko woon muy àlli kese. ak xeer yi kese defe naa ne boo ko soxlee moom da nga sonn da nga sonn. mais li wér ci mooy bi ne aéroport dañoo soxla huit mille hectares ba doon te huit mille mbaa dix mille lu mu ci manti doon état génne nag ndàmpaay jox ko ñu doon occuper espace boobu moo xam baykat moo xam sàmmkat moo xam ñu fa dëkkoon. merci loolu nag mooy débat bi wu tey ndax bi nga xamante ne dégagé nañu deux cent euh, deux mille six cent un yi. Mhm. ña nga xamante ne ñoo fa nekkoon. ndampaay bi nga xamante ne moom lañ tuddee ndampaay du ndàmpaayu suuf waaye nag képp ku ci nekk la nga amoon ci taati garab maanaam ay sidéem ak yooyu noonu ñu calculer ko de façon un peu euh, simple mhm. ñu jox leen ko waaye nag loolu ci 2600 hectares yooyu lay mën bi nga xamante ne nam mën nañu nag teg seen loxo nag ci 4600 ba ci 8000 hectares yi ñooñu ba tey jii nii amul benn ndàmpaay boo xamante ne nii alors def nañ ko waaye nag bi nga xamante ne loolu am na ñun en tant que collectif bu jas ñu xam ne fi mu ne nii état bi jar na vraiment ñu wax ak moom dafa toll foofu uh-huh. ci la ñu njëkk a def suñu sorti à la presse effectivement ñu wane li nga xamante ne moom la ñu naqadi uh-huh. waaye loolu bu ma amee ci la autorités yi effectivement ñëw comme ay séminaire mais séminaire yooyu sax uh-huh. ba mu commencé

manam département bi ci région bi ñom gouverneur ñom préfet ñom sous-préfet. Mhm. ak euh, service compétent yi nga xamantene son sont liés au foncier ñom ñep ñi nga fa won ci séminaire yooyu noonu. lu ngeen tënkoon teg da ngeen tënkoon ni binaa ginnaaw bi njëkkee jox ndàmpaay deux mille et hectares yi aéroport bi occupé seen njëkk ko officialisé jox ñooñu ndàmpaay li des muy presque huit mille yi nga xam moo des ci hectares yi euh, joxuñu ndàmpaay si seen séminaire yi gouverneur signé woon na këyit jox leen wala préfet ça dépend kenn ci ñoom ni kat daañu jox ndàmpaay ñi des. xam nga nag loolu mooy problème bi parce que loo wax ci séminaire ba tënk que ñu ne ñu lii wax nañu ko.

alors ci kaw loolu aussi néewoon nañu ne euh, lii di problème mu crise yu jas fii ni nii problème la boo xamante ne nii ñoom jàpp nañu ne ba ñuy def maanaam ba ñuy ndàmpaay ñi nga xamante ne nii dañ ko bokk ak ñoom maanaam dañu dañu dañu bokk ak ñoom euh, aéroport bi ñu seq ko par exemple mooy commune Kër Mousse war jas voilà commune Kër Mousse xam nga foofu ñi dëkkoon ci ay dëkk ay dëkkuwaay ñu déloger leen yóbbu leen fenn ñooñu traitement bi nga xamante ne ni traité nañ leen ko mhm. ñoom seen wàllu bopp traitement bu mel noonu amuñu ko au niveau de ces Diass naam amul nag ay délogé waaye nag même bu ñu délusiol lépp loo xamante ne suuf la wala wala wala maanaam euh, espace la boo xamante ne nii nit daan na ko war a mën a béyee mhm. mais loolu dafa mel ni lépp ci ay loxom la waaw ah, sànq fi nga laal nii dafa ma xaw a am tuuti benn jaaxle bu fekkente ni yaa ngi ko yaa ngi joxe exemple ci commune Kër Mousse bi ngay wax ni ñoom dañ leen délogé jox leen ak ndàmpaay ginnaaw seen délogement bi ngay wax yéen waa jas ñenn leen délogé ñeneen ñi moom ba tey ñu nga dëkk seen dëkk non au niveau de Diass amul sax délogement délogé ñu fa kenn mm-hmm. waaye nag suuf si nga xamante ne ni moom la waa Diass doon sàmmee mm-hmm. wala moom lañ daan béyee loolu nga xawal nga xam ci seen i calcul huit mille hectares boo ko fa naree jël daanaka mën naa ne dara desut fa waaye nag ci kaw ci waxtaan yooyu mm-hmm. demoon ñu ci ba ñu ne huit mille hectares yooyu quatre mille euh, cinq cent hectares yi ñoo am TF mais yeneen quatre autres mille amuñu TF. lan ngay woowee TF ci tënk. titre foncier. ah ok bon ci loolu. Mhm. ñu ne ñu woon sax mën na am loolee lépp soxlawuñu ko dañ ko wàññi ci waxtaan bi ci séminaire bi ñu xamal ñu ne carrément. 8000 mhm. hectares yooyu <coughs> mel na ni cinq cent yi la ñu soxla gum. Mhm. waaye cinq cent yi boo ko xaymaawee dafa toll ci diggante route nationale numéro 1 ak autoroute à péage bi demaat nañ ci loolu ci ne. loolu sax bu dinañ ko réaménager ba nga xamante sax lolé lepp sax duñ ko mëna soxla. waaw ñu toog mais sama ma sax sa wax daal yéen waa Diass moom seen bi dara leerul ci seen diggante ak aéroport bi. ba légui dara dañuy jël fi jël daañu def nangam non finalement ñu dindi wat ko euh, dafa mel dal man xaw ma yeen yéen amul la bonne information lu xew yeen askanu Diass ak aéroport bi. on a toutes les les bonnes informations. benen bi ci top d'abord c'était le problème d'emploi hum. problème emploi bi actuellement ñi ngi former ay jeunes. dans les métiers de l'aéroport waaw loolu xam naa dañ ci ñëwaat sax ci mbirum mbirum emploi des jeunes ak aéroport li mu war a jur ci xay na koom-koom ci gox bi mais mbirum suuf si mhm. ba tey bind ngeen mhm. dox ngeen mhm. au delà ñoom ñu nekkoon foofu ci seen localité bi muy gouverneur ñoom seen ndax dem ngeen ci kilifa yi gën a kaweem ngir exposer leen seen problème tàllum aéroport Diass bi ak seen suuf ñun dañu yaakaaroon ne fu gouverneur toog toog préfet toog directeur AIBD toog ñëpp toog ku leen war a gën a kawe ci zone bi amatul. waaw comme que yéen joxuñu leen benn kayit tamit. Hmm. loolu moo ci xaw a garaaw. <laughs> dafay fekkee waxtaan ngeen. Hmm. ba pare amul benn papier bu ñu signé. pour dëggal ni lii waxtaan ngeen ko dogal la kon li ngeen doon def lépp waxtaan la réunion séminaire boo koy wax. daanaka amul benn dogal bu ngeen jël officiel. xam nga mbir mi mooy population yi Diass dafa nekk population boo xamante mën naa ne bu yaru la. xamul violence. Hmm. amuñu violence tey it lii soxluñ ci woon violence mais yaakaaroon nañ ne bu ñu dajalee ñu dem toog mhm. di def séminaire séminaire bëgg def loo xamante ne ni dana leer bu ñu laajeeg bu ñu laajul kayit daañu ko def ñu jox ñu ko ñu xamal ñu ne lii moo tukkee woon ca la nga xamante ne moom lañu ñu mhm. def doon def fale eh, ca Mbour. victime jas bi ak seen commune boobu ñaata la toll ci habitant. no boo ko xaymaay bëri na trop sax mënu ma am nombre bi exact mhm. mais bëri na. na bëri na. Eh, bi nga xamantene moo ci mujj lu ndaw la moo di dem nañu ba nga logement d'astreinte euh, pour l'aéroport euh, aéroport bi am benn 15 hectares boo xamantene ni ba ñu ñëwee ñu ne hectares dañu ko soxla recensement ci effectivement alors ciment du Sahel am une bonne partie am na aussi mission catholique tamit mu am fa tamit une bonne partie mais le reste dafa nekkoon loo xamante ne ni paysans yi ñoo ko moom te lotissement la woon lotissement ci plan cadastral ñu évaluer xool le nombre ñi nga xamante ne ñoo fa am demoon na ci ba ay presque pour de quarante wala boog trente cinq quelque chose comme ça hmm. mais ñooñu bañ leen recenser ba tey jii nii trente mille wala non cest di dire cinq quinze hectares la rek ah, bëriwul mhm, mhm. ci quinze hectares boobu noonu mhm. demul na ci ay trente cinq et quelques yoo xamante ne ni am nañu ko moom am nañu ko moom ñu doon ñu digoon leen nag ne ñii danañ leen ndàmpaay ne depuis booba léegi tabax nañu chantier ba daanaka chantier pare na ay immeuble la yu rafet benn ndàmpaay génnagul mais ba léegi ndàmpaay génnagul ndax seen xel wala essayé ngeen ko comme ni ñëpp def dem ci kanamu attekaay bi mooy li ma la wax sànq dama ne ñun dañu am ay kilifa yi ñuy xelal ñun ay violence xamuñu ko. justice de violence alaaji mooy li gën a jaaru. non bu jàpp ne daf la tooñ kay. nga dem ci kanamu yoon yoon atte. dëgg la sax mais dama ne la bu ma li tax ma ne. Hmm. xamuñu violence moo di ne. Hmm. Hmm. ñun dañuy teg suñu lépp ci yoon ci yar ak teggin. te yaakaar ne xëy ne lii bu demee ba ñi nga xamante ne ñoo ñu ci war a jàppale defuñu ko. ñun bala ñuy dem ay justice dañuy président de la république nga xam ne mooy président tous les sénégalais. ñun ñu ñaan ko bokk sax moom ci wàllu boppam ne lii nga xamante ne moom la ñii di def bu fekkente ne yëg na ko mm. wala xam na ci dara na ko saafara voilà naa ñëwaat léegi incha allah ci yow lii moo nekkoon première tour de table bi ubbi nañu antenne bi ah ci sunuy téléphone mi ngi noonu di affiché ci seen suufu écran ngir mën a bokk ci waxtaan ndax xam naa ne bari na ku ñuy xool koo xam te ne bi nekkul Ndakaaru mi ci beneen gox ci biir réew mi waaye mi ngi dund problème ci këram wala sax ci wàllum suufam moo xam toolam lu mën a doon euh, daanaka bul xoolee plateau bi li fi ñëw sàng Guèye yow mi nga xam yaa jiite fédération nationale euh, des victimes ah ci Sénégal ci wàllum suuf ak la ci aju booy xool dafa mel ni daal feebar bi fépp la fépp la yaa ngi doon wax sànq mbirum agent immobilier yi mais tam état sax léeg-léeg mu soxla fenn mais ni muy war a doxalee digganteem ak population bi occupé woon espace yooyu day des lu bëree bëree bëri bu ba état mi wara mi ñepp wax ni ko sëñ waxe sangum sàngo que ni état ñun la ñun ñëpp la dafa am kun dénk parti bi am kun dénk parti bi bu demee ba ñin denk ñu war a doxal war a doxal dëgg dem ba mbir yi mel ni comme li xew fii nga koy gis ci wàllum justice li xew jas li xew Tivaouane Peulh euh, lu mu lay jox comme jàngat ci Sénégal tolluwaay bi mooy li ñuy wax sànq rek vraiment parce que wax yi daanaka benn la mm-hmm. y a problème de cohésion déjà coordination surtout mm-hmm parce que l'État, vous savez services de l'État, il y a coordination entre ces différents services. très bien bu de dafa def qui ont di ne war ñu là ça pose problème. Mm-hmm. et puis il y a un problème de communication. Mm-hmm. parce que tamit wax dafa am Ça veut dire qu'il faut que

lu jara xoolaat la. mais ndax yéen ñi yore fédération ku mel ni jiite ko ndax tam seen rôle ak mission bokku ci jéem fexe ñaax askan li ñuy wax sensibilisation ndax ñu bari booy xool du ñu xam exactement bu ñu jëndee kër yan këyit la ñu war a mën a am. ba seen kër googu def sax enquête bu xóot ki leen jaay kër gi ndax moom moom ban ban façon permis la amoon occupation titre foncier lan la amoon yow nga dem jënd rek jox la këyit nga ni waaw am naa kër fekk na xëy na demoo lu gën a xóot ngir xam terrain bi lan moo ci amoon problème ci ginnaaw ay at ci ginnaaw ndax loolu tam nekkul seen mission yéen waa fédération bi. effectivement bokk na suñu objectif yi déjà suñu statut pour dire que dañuy jëm sécuriser le bien des citoyens naka Moi, comme li nga wax boy mm-hmm. booy dugg ci dara parce que comme que ñun jaar nañ ci mm-hmm. xam nañu talof-talof donc am nañ ci ay mm-hmm. on a des personnes ressources machallah, allah ñu bokk fu nekk day impôt feneen ak feneen moo tax taxaw nañ ay kuréel yoo xam ne du benn du ñaar ay nit a ngi soxla dara du laaj yan yoon nañu war a jaar pour am lii parce important mooy li marsan, sànq il faut une communiquer il faut des informations il faut nga nit ñi nga jox leen information bi xam ne ñu xam li xew li xew li xew comme par exemple amna ni ci ñëw ci kanam. Mhm. amna loi bo xam ne am na. askan bi mhm. bu bess la. deuxième semblant bi. Mhm. président wax na ci xam naa dañ ci ñëw ci kanam. pour wax leen rek yu mel nonu ñun dañ koy téy tënk ko gustu ko daal di jëm informer population par rapport à ça. mais japp nga ni avant information di am état tamit lu luwaay ba di bari ak taxawu yi xol xool dafa mel ni moom moo gën a nekk responsable ci li xew.

parce que tey service d'État yi doon jaay à l'époque ñan loo ne HLM Sicap ba léegi. dañuy kër da ñëw dem si notaire. terrain da ngay jëm si notaire or que ñoom dañuy jaay loo xam ne en fait terrain bi sax existé gul réellement. nit ñi ngay versé di versé ba en certain moment ñu la bu matee ñu dem ci notaire. donc diggante boobu en général ci lay problème di am avec le promoteur privé. moo tax nit ñi vraiment amuñu tort ci benn côté. parce que mhm. fekk bi dox rek jàpp ni. noonu la état bi doxalee lu jaadu la ñu tegu ci mm-hmm. léegi nag bu problème amee moo tax c'est c'est intéressant ku nekk si état naa ko ba sonn. waaw c'est c'est waaye xam naa ñoom tout le temps des fois ni doxale bu leen soxlaa ngir ñëw ci xaw jafem mais ba tey duñu taay ah suñuy antenne ubbeeku na aussi. mën nañoo participer en direct kenn si ñoom. Mm-hmm. mais nga continuer fi nga nekkoon parce que c'est important mooy fexe ba tënk yoon leeral ko ba askan wi mën a xam li xew exactement. mën xam exactement ba itam état tamit bay bàyyi par parloo gi ko mën a waxee ndax bu fekkente ni nit di def dara mm-hmm. am loxo bu guddu mm-hmm. wala sax kan na ca yoon wala ñu ko jege doon koo xam takk na ca mbir ma comme ni ko sëñ soo waxee sàngam waa ji fal naan bu ma daanoo ay ponkal daañu daanu mhm. kon am na fu mu wéeru ba jàpp ni moom kon lu ko neex def ci kaw askan wi bu na am loolu fu mu wéeru tey bu bu ay cinq personnes porté plainte réaction daa dem mhm. mais malheureusement da ngay gis pendant plusieurs années nit ñi di réagir di def lu nekk mais dara du am c'est parce que y a problème quelque part mhm. donc am na par parloo moom daf fi am moom. Mhm. là il faut le dire. par parloo waaw. waaw loolu ndax bu par loo day am. ñëpp xam ko. ndax lu coow li mën a bari lu waaye luñ ko teg lu mën a bari bari ndax dana dem ba askan yi war a am dëkk waaye ba aw ci yoon bi seen xaalis am fu ñu ko dugal ndax dana ma sa am solution ci problème yi ndax tam màbb ay këru jàmbur comme te wax pare waa waa gàddaay vraiment dafa daw yaram. ay nit sax dem ba di ci dund jafe-jafe di di ci ñàkk bakkan ndax stress naqaru xol vraiment. dafa métti que man mi wax jiite fédération bi. Mhm. mu doon cité cas tey c' est extraordinaire. am nga ci ay cas xam kon. cas yu extraordinaire seen wala genre ñu dem ba ñàkk seen bakkan. am nañu seen kër am ñoo xam ne seen alal bi nu amoon maanaam doon mhm. na. gis njaboot boo xam ne borom kër gi dafa genn àdduna. Mhm. góor ki ñu jël alal bi pour alal bi bañ a naax saay ñu jël xale yi di leen leen ay terrain. quelque part. Mhm. alal boobu naax saay. ils ñoo xam dañuy nekk bitim réew pendant dix ans diaspora ñun sunu collectif fii sunu membre yi booy xool ay di milliers milliers milliers de femmes yoo xam ne waaw ñoom dañ cee nekk victime yi sonn tax dañu yóbbante xaalis jënd terrain finalement ñëw doo fekk dara voilà ba pare conséquence mooy dañu tas ay jaboot waay maanaam paa bi day nekk fii doom yi di ko yónnee mu dem di jënd problème am doom yi am nañu accusé paa bi duñ comprendre jàpp ni paa bi moo la bëgg seen xaalis day gis góor yoo xam ne ah géey man de sama doom yi dañoo daan woo chaque semaine waaye léegi de naa toog weer sax nu am ñoo xam ne dañuy dem bitim réew gis fa seen xarit ñu ne ah man de Sénégal gis ñu jox la. Mhm. responsable nga ñëw donc tas na ay diggante. yàq na diggante papa ak doom. Mhm. yàq ak jëkkër. parce que am na yoo xam seen yaa ngi mission Darfour ak feneen ak mooy les soldats. wallaahi mhm. seen alal seen jabar moo doon dox bu ko defee wuutu bu ñëwee ne waaw ah, ku la dugaloo sama fekk. tolof tolof sëñ am na mbokk mu nekk en ligne ma xool ko ñëwaat ci plateau bi mbokk mi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw kay turee foo ne waaye mbokk mi. maa ngi tudd monsieur Ngom maa ngi wootee Guédiawaye. ah monsieur Ngom Guédiawaye nag waa Guédiawaye. ren ah, di ziare bu baax a baax. di ah. ziare waa gàddaay yi. surtout maa sunu représentant Baara Sow. waay Baara aham. ñu koy ziare di ziare monsieur Guèye Azil Imo. ma xarit la bu baax. waay maa ngi koy ziare di ziare Barke bu Tivaouane Pël. aha di ziare waa Diass yi bu baax a baax. waa Diass aha ak Mbaye Seck. waa li boo ko xoolee da ngay xam ne Sénégal. Mhm. toowul suuf moo ko nar a boo ko nar a toj. déedwaay. koy wane boo xoolee plateau bi ku nekk bokkul fu ma jógee ba pare bokk même cas. même problème waaye. cas yi différence bi bëriwul. Mm-hmm. parce que li problème mu gàddaay mooy problème gàddaay li gën a garaaw. Mm-hmm. mooy ay nit ay gendarme ñu wax descos ñëw ànd ak nit mu ñëw toj këri jàmbur ñooñu jël ko yóbbu ko ci yoon ñu xool ni ñoo ñooñaa nekk ci yoon loolu lu garaaw la lu doy waar la lu rusul la. Mm-hmm. parce que lu toll ni kooru gendarme yi. bala ñoo dugg ci mbir moo xamante ne buñ demee ci yoon duñ ca am yoon waroon nañ koo xool bu baax parce que lor nañ ci ay doomu aadama yu bëree bëree bëree bëree bëri mhm, mhm. yàq seen alal tardeel leen teg leen naqar teg leen coono te ki leen ko teg mënu laa génneel benn këyit bu wane ni famille Ndiobène ñoo ko jaay ci ci prix bii amul at de vente bu mën a génne amul ordonnance bu jóge tribunal bu ko may mu toj mhm. amul benn këyit boo xam ne mun na koo wane parce laaj nañ ko ko mënu koo génne ba pare mu retourner taxaw ci kanamu juge naan gendarme bu nekk cinq mille francs la la fay ci kanamu juge bu koy wax. ah bon. c'est bu naa gendarme bu nekk cinq mille laa la jox. mais li ngay wax ni est-ce que c'est sûr que loolu la wax parce que li c'est grave ah. loolu am na tey mooy. Baara Sow mi ngi toog gendarme gendarmerie. ngay wax moom moo wax loolu Baara Sow ngi toog mu na ko confirmer. pour escorter ki non limay may wax nii Baara Sow moom toog mën na ko confirmer fekke na ko. loolu la wax ci kanamu juge bi. ku nekk 5000 laa la fay ñu ko ñaata nga frais ci tëj bi mu ne à peu près pare naa ci 3 millions ndax dama jëlee oto yi ak nangam nangam pare naa ci 3 millions ak gendarme yi mu jox ku nekk 5000 pare naa ci à peu près 3 millions loolu la wax loolu la wax. Mhm. ba pare biñ ko plaintere procureur yi ñu ñu ñun amuñu preuve bu wane ni moom moo toj suñuy kër ku def loolu kay preuve bu ñu dëgg na leen loolu. bu mhm. nu amul mat dem ci juge yi affaire bi day nax saay xool leen loolu ndax war na am ci réew yoon. ñu tooñ la nga dem ci yoon ñuy jël wut yoon bu ñuy jaar pour ji la toj rëcc loolu bu yoon dëkk mhm. dafay am yoon ñu koy yoon bi ñu koy doxal Macky Sall mënu lu dul teg ay nit pour ñu doxal yoon loolu la mën mais ñi xam ne ñoo ko war doxal nag ñoo ko war a li mu bëgg ñu koy defal parce que Macky Sall ku ne xam ne ni réew mi bi koy fal bokk na yaakaar ni bu faloo yoon dina am ci réew mi mais bu faloo ci réew mi ñuy gis ay nit ñuy doxal ñoo xam ne moo leen teg ñuy doxal ñoo xam ne tegul ci yoon loolu dañ koy ñaawlu voilà aussi. waa gàddaay nañ taxaw si ñoom nu mu gënee gaaw parce que sonn nañu yoratuñu lu tabaxee yoratuñu lenn loo xam ne mën na koo jëfandikoo. waaw waa Tivaouane Peulh aussi kazaalika noonu la ñu sonnee dëkk bi ñëpp a sonn ndax dañoo yàq seen économie vraiment métti na. maa ngi nuyu waa DTV yu baax rek di leen gërëm. merci beaucoup di gërëm waa Walfadjri di gërëm waa. seen TV gërëm am ne jàpp bi dafa am ñoo xam ne yéen dañu leen di jël particulièrement. vraiment ñu mel ni DTV mel ni seen TV mel ni Walfadjri ñetti télé yooyu kenn mënu leen fay. vraiment kenn mënu leen fay. waarakala euh, loolu mooy Sénégal euh, presse bi ñoom ñu bari si ñoom euh, tout le temps am na si ñooñ dañuy féete ak askan wi saa yu amee jafe-jafe ngir jox leen kaddu gi ñu waxtaan ngir leeral waaye tamit waa nguur ak képp ku mën doon te dañ jaaxaanaay ngir jox ku ne kàddu fi nga nekkoon am na solo sàngum dañ ñëw sax sàng ci li mu wax ndax loolu c'est grave ak baara ci yow laay ñëw bu ñu xamee tuuti mais géej fi nga toll woon sàng Alioune Badara dafa mel ni kon <coughs> dëgg dëgg tamit ngir mbir mi am solo ko am il faut état nek un état un état bo xam te bi day woné ndëgër lay un état fort buy mën tax ba yoon même bu ko teurelé parce que Sénégal barné loi mais problème application moy sun problème dafa mel ni te loolu état moko régler réglé. Mmh. loolu dafa lalu ci dara ci ñaari mbir. Mmh. muy laal xam-xam ak dëggu. Mmh. jeex na réew yi ngay dégg ñu développé yëpp ci lool nañu lal seen mbir ba àgg fu nu àgg.

ni ak Sénégal fi mu toll 1960 ba léegi ñu am suñu indépendance di doxal suñu réew ni mat nañu ko te ba tey rek léegi ñu problème mu suuf euh, ndax jàpp nga ni Sénégal am na ci yoonagun awagun na ci piste buy mën a tax ba malgré que président Macky Sall taxawal ndax am na commission mu taxawal daal di koy dénk professeur Mbaw Moustapha Sourang nga xam mooy problème mu euh, réforme euh, foncier bi boobaak léegi ba tey dara doxagul ñu ngi xaal seen rapport yi. ba léegi voilà téyal tuuti ma jël mbokk nekk en ligne salaamaaleykum mbokk mi. عليكم السلام ورحمة الله. أه، فوني وين؟ فمن الفرقي؟ أها يا جلال تنتبه. لا جفاء. خم قال لي صح. بس كل بلو جس دانا في بروجا لا. بروجا أوبجكتيف دام أوبجكتيف ما نام. لا نيجي بقى تلي. لو لونج بقى دفعم بين مونتاج بوكاي تحوله. واه. لو ماني والوسو فغلنن منو منو منو كتنك تبوله وجه أسكامي.

on prend en compte toutes les victimes au niveau national. Mhm. même projet bi ñu taxawal xamna ni ne ci kanam. dañ ko ubbil askan wi parce que day ñew barki demo jay def ben euh, document ñu jël euh, Moussa Dior mi nekk en ligne euh, Moussa salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. Dione fan yi wooyee. maa ngi di wooyee Dakar waye dekk Kirène. Ya nga Kirène ci boru Diass kon. waaw booru Diass waaw. Ah, aha ñu lay diglu Euh may nuyu ñooñu teew ci plateau bi di la jëw bu baax. ndax da ñoo may occasion pour ñu mën a wane sunu sunu euh, li nga xam ne neexuñu suuf muy suufu Kirène mhm. ak ak environnement Kirène yëpp li ko wër waay tànk fi nga fi nga daanele di maa ngi lay dolli bu baax euh, nga daanele fi nga daanele euh, man foofu laay waxee muy état état africain yi ñooy seetaan pauvre yi mhm. ñoom dañuy seetaan baadoole yi mhm. ndax li tax ma wax loolu mooy suufu Kirène ak li wër Kirène fépp foo xam ne fii nit war na war nañ fa mën a jaar jaar nañ fa mais autorité yaa ngi ñuy seetaan. Mhm. Eh, eh, eh, nguur gi passé nii muy nguuru président Ablaye Wade mais yéen ñi jàng français da naan da di faral di wax naan état continuité la. Mhm, ci lu wér. bu fekkee état continuité la Aminata Niane def na audience publique jas autorité yëpp wër ko ak ay ministres. Mhm. mu ne yéen waa Saafeen suufu Saafeen li ci aéro aéroport bi di sox soxla jël na ko ba mu jeex takk hmm. balaa ëllëg keneen bi ñëw naan leen aéroport bi day yokku aéroport bi day yokku loolu nag ñu fi nekk dañoo jeex rek aéroport baa ngi tawee ku mel ni élastique hmm. auto autorité yi nga xam ne ñoom ñoo ñu war a dimbali taxaw di ñu seetal dama ne ñu autorité yi nga xam ne ñoo ñu wër defuñu seen liggéey hmm. ndax ñoom waruñu seetaan ah président bi ñun nag ñu ngi lancé appel président de la république bu fekkee moom yëg nañu na xam ne ñun kontaan nañu. Mhm. même bu fekkee dana immigré euh, aéroport bi ak date bu ko ak date bu mën a doon ñun neexuñu. kontaan kontaan nañu ci gouvernement ci gouvernement bi ni muy doxale ci biir saafara. Mhm. ci suufu saafara. suufu saafara daal benn roq ci biir jasak la ko wër. waa benn ruq la ci biir des. ak ak ak li nga xam ne moo ko wër. aéroport bi directeur bi nga xam ne moom moo ko yor muy mooy directeur AIBD. moom moo ñu gën a sonal ci sunu suuf si ñun. ndax yow ni ni la ko teg waxee sànq. suuf suuf bi suuf si nga suuf suuf si nga xam ne moom lañ jël mais li ñu ciy dédommagé trente pour cent la. trente pour cent la bëriwul. waaw trente pour cent ci. man mi man mi di wax ak yow. amoon naa ci 12 hectares 12 hectares boo xam ne bii lépp quatre cent la ñuy jox 12 hectares quatre cent vingt mille. doy waar waar. waaw kay John xam naa dama lay gërëm rek xam naa yow dañu amaat occasion beneen plateau ci wàllum ceewal suuf ci Sénégal du ñàkk sa kàddu mën caa gën a jib ndax xam naa ne ñu am problème mel ni bi nga am bari na ci biir Sénégal euh, ñu lay gërëm bu baax ni ñu waa Safen ak waa Jessa Kiren Kirène euh, sëñ Guèye fi nga toll woon sànq mooy fexe ba trouver ay solution ndax gëm nga ni état fi mu toll tey jàpp nga ni état moo amagul xëy na volonté wala bu amee volonté bi tam xay na booliwul ci askan wi ngir war a mën a def lu leer ba ñëpp mën koo xam ba mbirum suuf coow lu ci am man a wàññeeku bu baax ndax daanaka dañu jàpp ni sax bomb la boo xam tey mën naa exploser à tout moment. état bi mën naa wax volonté am na. su may jëlee état mu tënkale ko président de la république son excellence Macky mm. am na une très bonne vision dans ce sens. Mhm. parce que boo xoolee ci plan Sénégal émergent volet social habitat li mu ci wax dafa am solo. Mhm. dafa ne dañuy accroître l'accessibilité au logement des compatriotes sénégalais. waay barka mu ngi ko tëggee mu ne nag. Mhm. na askan bi sax organiser seen bopp pour. ñu mën leen jàppale donc muy foofu yëpp. dugg ma la ñu xool Omar bi nekk en ligne ñëwaat ci plateau bi Omar salaamaaleykum. waaleykum salam wa rahmatulah. yaa ngi ci ban gox. Omar Thiam day victime de Tivaouane Peulh. aha ndax waa Tivaouane Peulh Omar. ñu ngi ci rek ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. Baara ne sant bi neexul Thiam aha. waaw ñu ngi rafetlu émission bi. di tatagal ñu nekk foofu ñëpp. tabarakàlla jërëjëf. comme li suñu gars wax foofu rek ñun dañuy laaj euh, ban Sénégal lañ nekk daal. lan moo la jaaxal. parce que nekk ay ndaw di góorgóorlu. da bëgg a taxawal si avenir ñu ñëw na la doo ko taxawal. Mhm. ñun daa mel ni loolu laa gis ne mooy doxee Sénégal am foofu terrain xëy na ñu kii ko nangu ko. waaw waaw waaw ñun ay yoon lañ ay xale lañ te mënoon nañoo def comme ni suñu morom def mhm. def na ko waaye ñu ngi koy gërëm bu baax moom taawoon pël lay wote xam naa jege ñaaleep ak dëkkandoowu sëñ Badji la euh, fi nga tal woon dama bàyyi nga wéyal en même temps bari na mbokk yi ñu wax noonu ndax volonté état bi uh-huh. mhm. ndax dëgg-dëgg foofu la ay logements sociaux baax na mais ndax amul fu gën a xoot problème bi fu gën a sori au fond. si foofu xam nga logement bu ne logement. Mm-hmm. ñu wax suuf. Mm-hmm. donc foofu il faut ñu réglementer ko. te am na ay kuréel yu koy réglementer. Mm-hmm. malheureusement askan bi amuñu information yooyu. moo tax mu wax la sànq ñu ne ñu jóg nag. créer fédération bi pour en fait maanaam taxawal askan bi ci wàll boobu. parce que gisuñu au niveau de l'Assemblée nationale gars yi di ci dugg en profondeur comme ni nga wax. gisuñu au niveau de l'État, état. gars yi di en profondeur parce que mbir bi il faut le dire. président am na lu mu taxawal. mais état bu demee ba lëkkaloog ay puissance financière ñoo xam ne profit moo leen tax a jóg. alal seen banneex seen bakkan moo leen tax a jóg là ça pose problème parce que bu dee gàddaay toj nañu am na derrière. ñenn ñoo xam ne. ñu ngi koy bàyyi xel. bu nee Tivaouane Peulh kii am na ñoo xam ne derrière am na lu fa am. Mm-hmm. donc pour dire que tant que état.

waaw euh, monsieur Dogue laa tudd maa ngi wootee Kër Massar. ndax waa Kër Massar. dama dama dama bokk ci victime yi euh, nga xam ne Alioune Badara Gueye mënu njaboote. waaw dama am collectif boo xam ne collectif fu particulier victime Namora yi la. Namora mais dama bokk ci ci fédération bi nga xam ne Alioune Badara Gueye moo moo ko jiite. ba mhm. passage maa koy gërëm di ko sant pour lépp lu muy dox euh, ngir fédération bi. di masaw aussi coono ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci plateau bi. Mhm.

projet état la état mo ci dugal parce que état mo joxe ressources gratuitement pour le promoteur moy Badiane. montagne ou à Sénégal coopérative nek fi euh diaspora bi Atlanta Bergamo fu nek des di joxe seen xaliss Abdoulaye Wade bu mu doon voyager président Badiane dafa doon dugg ci avion yi. Mhm. avion présidentiel mu yóbbaale ko. muy gis diaspora bi ñuy verser des millions et des millions. finalement fu mujjé ci gatal donc finalement nan la le projet a échoué bon on a fait une certaine durée pour que les ñu muñ ko jàpp beaucoup prison. Mhm. bon les affaire bi juges. guñ y a des familles qui sont disloquées. depuis important. at booba ak hein? c'est des milliers de personnes. Mhm. parce que man ay victime particulière là, j'ai un collectif de particulier. Mhm. mais il y a beaucoup de coopératives waa SITRAS waa ONA donc waa COTECNA fédération habillement kenn mënu ko lim. L'Union lu ñu ñaan état bi Macky Sall le président de la République mooy mu dugal loxam je pense que le président euh, Alioune Badara Gueye. Mm-hmm. c'est une proposition nous en tant que victime nous avons fait des propositions concrètes le chef de l'État mën pour mettre en place des logements vraiment sociaux. ok qui n'ont rien à euh, envier. Uh-huh. à ce que les promoteurs proposent parce que amul amul sa photo. la preuve nañ nañu dañu bëgg rek. moom na état bi jox leen ñoom promoteur yi nga xam ne état bi homologué la leen. na leen jox foncier. Mhm. ñu jox ñu foncier ku nekk tabax. ñu comparé. jaajëf monsieur monsieur Dione la ñuy ñaan chef de l'état. merci beaucoup ah euh, Dione ñu may doon wooyee Kër Massar dama lay bàyyi nga daaneel ma soog a dem ci baara àggale problème mu gàddaay da nga tourné waat ci plateau bi. sëñ wax na ko sànq mhm. dram bi moom. foo ko nattee rek foofu la. oui na trop. comme li nga doon wax ni volonté état. waay foofu la en fait. Mhm. cest jël mbir mi en main tant que état mi ngi lënkaloog ay privé et puissance ça pose problème parce que le président de la république à chaque fois da kay wax mhm. naa si aussi si peut-être deuxième salon bi mom à chaque fois day tudd population mhm. citoyen do dik si beneen discours nak ñu tudd lolu pour dire que dafa am ñoo xam ne liñ tere buur. waaw loolu baadoolo moo koy ah. siim. c'est ah. ce qui existe au Sénégal. muy lu ñaaw. muy lu ñaaw te loolu war a jeex nag. mais c'est vrai moo tax Sénégal mënul dem. parce que mm. yàlla aussi képp kuy noot askan. dëkk mm-hmm. boobu naat da koy jafe. baaxul te nit ku nu tooñ. muy yéefeer ak mu mënti yàlla moo koy may dëgg. voilà donc pour dire en tout léegi xam naa ngir xoolaat yan ay pexe lañ war am ci ay solution ba situation bi Sénégal toll ndax tiit nañ ci lool ni ëllëg mën na fa indi lu rëy ci réew mi ci ay problème bu fekkee teel ñu ci ak ay solution damay dem ci euh, waa waa gàddaay. Euh, Baara sànq ki wootee gàddaay dafa am lu mu wax ba gërëgal. ci mbirum euh, li waa ji versé ci ay millions ak li mu jox euh, gendarme man nag loolu dama ci am doute ba tey ni loolu man dafa xaw dafa garaaw kon bu toll ni gendarmerie nga taxaw ci attekaay bi naan jox naa leen euh, mille francs agent bu ci ne mais man loolu doon na cas bu rëy ci man boo xam dama ci am doute ba léegi. waa xam nga loolu mu wax avant tribinal sax dañoo démolir mercredi vendredi moo ko président Macky Sall. Mhm. mu boole ñoo son chef de cabinet politique ministre conseil Mahmoud Saleh Mahmoud Saleh au ñu au woo Sérémi Ndione ak Mamadou Diène bi nga xam ne le directeur d'escorte mhm. bi leen Mahmoud Saleh laajee yenn document ngeen am pour toj foofu ñu ne non dañuy agressé Falawoy mun leen ana jugement, jugement wane wuñ jugement ana seen ordonnance ñu ne non cotu d'escorte sur 59 53 nangam nangam may nañu droit de démolir. sans avertissement sans bah, benn papier sans tribunal. Mhm. Euh, Nous avons ko euh, nan ngeen démolir ñu avons le promoteur, promoteurs Baba dañ nañ ba amatuñ carburant le promoteur Babacar Fall ñu 2 millions. Alors avant tribunal. ca Babacar Fall moo moom espace boobu des ko toj. moo ñu moo ko toj moomu ko. kon influence bi nga am foofu. waaw léegi bi ñëwaatee ba tribunal muy tudd Descos di tudd Descos juge bi na ko mais yow lan nga mën a taqalee Descos. mu ne gendarme baara baal ma jël euh, Omar Thiam xam naa sant bi neexul pour yow. Thiam salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. lii dafa daggoon tànk. waaw nga daaneel kon incha waaw. waaw li ma yeggali mooy ñun. Mhm. depuis boobu léegi ñu ngi toog de xaar. te am na li nga xam ne ñun nasoon nañ ko. yow yaa ngi ci ban ban ko nga lay wootee sax ci am. Tivaouane Peulh mm, ok waaw parce que boobu léegi ñi ngi xaar ki nga xam ne mooy préfet département Tëngéej. Mm-hmm. te moom moo waral liggéey bi te boobu léegi ñun bind nañ ko seeti nañ ko def nañ ko lu nekk mais mënuñoo recevoir waxuñu dara. Mm-hmm. léegi nag ñun ñi nga xam ni proposition yi ñu taxoon ñun ñun dimanche incha allah dinañ taxawaat suñuy ñu xool. Mhm. yan jéego la ñu jógante ak ñoom. parce que tey njaboot bu bëri ñu ngi woon foofu macha allah tey seen i doom jànguwuñ amul fu mu nekk nekkuñ ci lenn léegi ñun dañu laaj ci ñun benn Sénégal lañ nekk. Mhm. waaw voilà jaajëf ñu ñëwaat Tivaouane Peulh xam da dana ñëwaat léegi ci euh, Babacar euh, Badji mu ñëwaat ci mbirum Tivaouane Peulh fi nga tolloon sànq baaram ci toj bi ak ni mu demee. ni mu demee ci amul benn papier bu leer ñuy démolir euh, bi gendarme yi ñëwee. Mhm. dañu dem laaj ñu ne ordre lañ reçu ñu ne mais ana ordonnance bi joxuñu ñu ordonnance. Mhm. ñu woo benn député man maa ngi woon Touba mu woo Bougageli mhm. député moo dem ba ci gendarme. Seydina Fall Seydina mu ne ko amuñu y' a chargé de mission de la présidence bu tudd euh, euh Nanba, mhm. euh, kenn ci kenn ci ñoom. Mhm. ak Awa Sow député ñu ne amul. bi loolu amee délégation bi fi desoon dem seeti préfet. préfet fekkuñu ko fa ñu woo ko téléphone mu ne yëguma toj ñu dem tribunal départemental bu Pikine ñu ne yëguñu ko. Mhm. ñu dem ci gouverneur de Dakar mu ne même biñu démé ci Serigne Bassirou Gueye procureur de la République wax ko dañ fan moy gaday lolou bu done am information bi makoy koy contresigné. Mhm. man yëguma ko. ndax toj mom toujours amna autorité bu ko wara a moy préfet wala gouverneur wala procureur. légui no meuna démolir 253 parcelles cinquante trois parcelles ñooñu ñëpp mu tuddu ken yëgu mhm. ko juge bi ne bi ñuy atte nan nga def lan moo si taqal descos mu ne maa leen jox cinquante gendarme ñëwoon gendarme mu ne cinq mille lañ leen fay carburant deux millions suñu avocat posé question ñaata oto moo indiwal gendarme mu ne ma mu ne ko kon am na lu si ne xanaa ay settar na ñoo doon yóbbu carburant bi deux millions de carburant <laughs> xanaa ay settar na lañ jëloon si euh, LC Mbaaw Mhm. ak gàddaay deux millions de carburant kon am na lu si laxasu mais foofu dañ fi remercier président Macky Sall mhm. parce que dafa jëlee directeur d'escorte ba automatiquement foofu Diène Mamadou Diène mhm. les gendarmes séri euh, les gendarmes Serigne Ndione ñu jëlee ko foofu yóbbu ko RTS après léegi mi ngi kaaf tribunal sinon ñooñu bu ñu fa nekkoon dañ koy encadrer mu tabax mais dañ leen fa jëlee automatiquement kon ay avancement mi ngi am avancement mi ngi am Mahmoud Saleh woo le ministre de la justice dafa voyagé boobu euh, Lamotte bi nga xam ne mooy président tribunal tey jii moom moo ñu recevoir ne ñu dem leen porter plainte ñu dem porter plainte au niveau de DIC dossier ba réer DIC fu fii si bañ koy arrêté woon sax ñu yóbbu ñaari numéro maçon lañ am yu DIC dossier bu réer réer même fi fi ñu ko arrêté woon dañoo dagg paas ba ah, xam ñu topp si ay at di daw ñu yó ñu enquête bi pare ñu yóbbu ko tribunal bi ñu yóbboo enquête bi tribunal mhm. procureur nañu insuffisance des preuves ñu ne ko ba léegi ñun joxe nañ preuve yu doy jox ñu suñu ba sànq tey suba suñuy avocat ñu ngi doon daw si PV boobu ba léegi jotuñu PV mhm. ñu ne nag li ñu yoon may mooy situation directe mhm. ñuy remercier suñu avocat yu compétence yi maître Assane Diop Ndiaye maître El Hadj Diouf maître Thioy maître Dialy Kane maître Mbeng ñu taxaw def ko situation direct renvoyé nañ ko 14 fois. Mhm. mais finalement até am na. atte am na. mais ba tey li ngeen di jooy amagut solution. amagut solution. waay donc jaay doole. lu war a doon étape bi ci toppaat. ndax li war a doon si étape bi ci topp mooy dafa war a tëdd këram di nelaw. di organiser ay conférence de presse. di fi indi ay conflits religieux naan laayeen ñi ngi si ginnaawam te benn laayeen nekku si ginnaawam laayeen yi bu ñu amee kàddu bu ñuy waxee porte parole laayeen moo koy wax. te mhm. porte parole laay nekku fa bokku si jël ay nitam rek ay quelques nitam dajale ne la euh, communauté laayeen ñi ngi ginnaawam maam Limaamu Laay bi mu nekkee fii si Sénégal da doon doppali géej gi jox nit ñu dëkk nga ñëw mu may la terrain may la soxna mhm. may lay tool mu bañ ba conflit bi sax mu bañ ñii sant caam ñi sant sow ñi sant mbay mm-hmm. mu ne ñëpp nañ sant laay maam limaamu laay du toj tëru kenn mm-hmm. Mm-hmm. léegi nag loolu muy manigaase la war a dindi teere boobu dañu siy woomee ñun duñ ko si fekk voilà may wax ne ay sunuy sëriñ lañ may wax ni baaba may wax ni Omar wala sax Baara soow Sow suñuy buntu ubbeeku na ba tey parce que ñun dañuy bëgg sunu rédaction di tëdd day tëdd jaaxaanaya ah. moo tax li wax fii yëpp moo xam promoteur Mbaye Babacar Fall moom ngay wax suñu buntu ubbeeku na ngir moom ngir mu jibal kàddoom ñu am beneen côté bi mais li nga wax tam si important bu fekk dem na bay yoonu Sénégal tey mi ngi dogal dogalam waaye amul application mais tam lu xew yaa ngi doon wax sànq président Macky Sall yoon di gërëm doxinu état mais tam foofu am nay faay aussi waaw am nay faay parce que li tax nga euh, ay faay am na si mhm. mooy que nu ñu mën a démolir deux cent cinquante trois maisons ñun ñi tabax foofu mus ñoo dem tribunal ñun amuñu délibération de bàyyi lañ am. Mhm. bu famille Njóobeen quatorze hectares yi mbaaw lañ nekkoon ñu déplacé leen indi leen gàddaay. Mhm. président Macky Sall moo signé décret boobu boobu mu ngi doon premier ministre jamono Abdou Diouf. Mhm. kon ñun lu leer la ñu am. ba pare promoteurs yi président war na jël état du Sénégal war na ñoo jël ay responsabilités yoo xam ne. promoteurs ñi ngi rey ñi nekk si diaspora bi. foofu noonu ñun moment bi ñuy tabax Mbaye Fall def na benn maquette dem Europe jaay fa presque cent vingt cinq personnes dafa leen ay promesse de vente. Hmm. ñu xool mbokk mi nekk en ligne salaamaaleykum. mbokk mi allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi na ngeen def yéen a ngi ci jàmm. foo ni wooyee. waaw maa ngi leen di wooyee nii euh, niveau de comme cité comico. ah cité comico ah. voilà mais maa ngi bokk ci collectif bu Thiawane Pël. Mm-hmm. maa ngi tudd Bëgg Fallou. waaw kay lay déglu Bëgg Fallou. donc euh, dama damay wax ni rek actuellement problème mu foncier fi mu toll. Mm-hmm. soxla wuñ ci kenn ku dul président Macky Sall mu ñëw def li mu war a def. Mm-hmm. te bu ko santaanee fañ ko war a defee ñu defee ko nañ ko bëggee. parce que ñun du ñu ay ivoirien du ñu beneen réew ay sénégalais lañu. waaw te yaakaar naa ni sa njaboot même bu fekkee dafa def loo xam ne dafa juum sax da ko war a dimbali mais pas nga topp ko. comme nag moom directive yi mu joxe ci au niveau du Tivaouane moo mooy ñu régler situation Tivaouane Peulh. Mhm. mais ki ko tardel muy préfet départemental bu Tëngéej ñàkk a respecté population Tivaouane Peulh tax mënul wax ak ñun mënul toog ak ñun mënuñu wax ni lii moo ko téye loolu ñu ngi koy ñaawlu di ci woo ah, euh, voilà euh, ñu ngi koy gërëm na mel ne mu ngi ci mais li am solo mooy mi ngi wax problème bi ñu duñu taawoon pël baara nga yeggale fi nga nekkoon euh, di la wax ne Babacar Fall mhm. euh, ku am doole la ku ku am fit la am na fu wéeru parce que di coow li jógee noonu procureur bind na ko benn këyit na ko terrain ba bu fa teg sa tànk ba problème yi di jënti même pas cinq jours mu indi ay nervi cinquante mbër mhm. ak bil ne day maasale foofu ñu jàmmaarloog moom mu ñëw ne day forcé ñu jàmmaarloog moom mu taal otom daw départ ñuy remercier commissaire u Wakhinane moo ko woo wooñu ne ko ne fa nervi yi jóge bil bi ne borom bil bi bu fi bill bi yendoo dinaa ko fourrière kon bu ñu ñàkkoon fayda hmm. day dugg si foofu ñu bàyyi six mois après mu jël commissaire u yëmbal mu ñëw si terrain bi ñu ñëw fekk na ko loo fiy def mu ne noo bay Fall mo fi mom yeen momu len fi dara amna sax capacité indi 1000 policiers ñu encadrer ko mu masalé ñu nako ñing lay xaar. hmm manako monsieur le commissaire affaire dafa passé ses compétence dossier bu nek tribunal commissaire mënutu ci dara fi tant que tribunal addu ci wi dossier bi ku fi tek tank ñu jàmmaaroo yow lolu moñu may jàmm ba tribunal wi de dossier bi mais dal li ñu jaxal dal ba léegi moy mm-hmm. mbay Fall dal lutax mu nek kërëm organisons organiser conférence de presse nous wax fait ko neex te dara si. je mhm. liñ ci le <laughs> président Macky Sall le mouvement présidentiel le mhm. Benno Bokk je le président fédération nationale du Sénégal et de la diaspora président sama xarit la. qui mhm. askan wi le ñor te sénégalais li collectif un problème que recevoir les trouver une trouver solution. trouver solution ko ci ko si wa Tabaco. ko ah. plus vite possible. parce que état Sénégal yi tamit lu koy moy mhm. benn xal bu ndaw day ñu koy négliger di ko négliger ba mu ne bum ñu doo ko ñëw fay loo xam ne paano ndox mënoon na koo fay hmm. dañuy xaar ba ay sept na ñëw doo ko fay ñu doo ko fay am Sénégal sunu état yi état yi donc dañuy xeeb seen xal mu lakk seen dàgg voilà baar naa ñëw inshallah léegi ci yow baal ma dem ci waa Tivaouane Peul euh, Tivaouane Peul dégg nga sànq mbokk yi moo de sànq dafa jàpp ni kon lenteur yi du kenn ku may ña nekk ca gox ba lu mel ni ki préfet mm-hmm. ndax loolu ngeen jàpp ni président Macky Sall tamit bu jëlee dogal xanaa moom itam war na ko suivre di xam fu mu toll depuis li ngay wax daanaka mat na un an ba tey amagul benn euh, changement bu am ci seen situation. waaw effectivement dëgg la wax. Hmm. ndax booy seet euh, démb rek maa ngi woon Soxna FM. Hmm, hmm, waaw j'ai beaucoup sujet le préfet. wax naa ci moom. parce que lu tax moo ko tàddal. il faut ñu remercier au passage le maire de Tivaouane Peulh Papis Diop. sonn na ci. toloxal nañ ko ci. amul lu mu ci dajul barkaay démb génn ci télévision yi génn ci rajo wax ñom bi mbir amé dañu woté def commission d'impasse au niveau de la mairie. Mm-hmm. képp ku am terrain ku ñu tëjal nga ñëw say documents déposé nga wax li nga yàqal ñu xayma bind. Hmm, defal la genre accusé de réception ci sa photocopie carte d'identité cacheté jox la. document yooyu yëpp ña nga préfecture. itineraaru préfet di nelaw. Mm-hmm. dégguloo ma de. ah kay dégg naa la bu baax. mairie bi. li mu liggéey lépp. waaw lu mu liggéey liggéey bu wér nag la def waaw. préfet daal mooy yéexal. bu ñu sukkandikoon sax ci liggéeyu mairie bi mun nañ fay nit ñi. mais mun ñu ko def lu tax parce que dañ ñëw toj tàggoo ñu toj ay fan fan ñi ñu yóbbu nañu yi ñi yóbbu brique yi ñi yóbbu gravat bi boo ñëwee taxaw war a évoluer benn kër mënatoo ko bu borom defoon je suppose cent franc. Mhm. mënoo ko évoluer dërëm. parce que li fële ko ni nit ñi yóbbu lépp nekkatu fa hmm? Hmm. mais préfet lan lay xaar nee naa la sànq moom mooy patron commission bi moom moo ko war a créer hmm. walaay ngi yàqeetu mu laay ngir yàlla na ko def Sénégal noppalu nit ñi noppalu ñëpp noppalu ñëpp nekk ci jàmm noppal président noppal ministre de l'intérieur li ma laaj sànq baaraam

quelque part dafa am arrogance bu am au niveau des services parce que yow mënuloo nekk préfet nekk ci bunt bu war régler régler problème bi man en personne bind naa lettre le 17 5e mois pour que mu recevoir collectif jusqu'à nos jours dara maa ngi accusé de réception jusqu'à présent woowuñu. dalu nañ fa réactiver ko lépp ndax saay ba kenn. mais lan mooy problème am ak waa Tivaouane Peulh la lañ bëgg a xam préfet lan mooy problème ak askanu Tivaouane Peulh ban problème am ak askan bi. dool xëy na mi ngi ñuy dégg dañu seetaan. ah ñuy dégg du ñàkk mu jaaree fi trouver solution seen cas. mu woote sax. Mhm. <clears throat> pourquoi pas mënul woote. parce que numéro baa ngi affiché na wax nit ñi lan moo tax mënul ñëw. Mhm. parce que man mënuma comprendre sa supérieur jox la ordre nga bañ ko exécuter. Mhm. et les ordres ça ah, surtout ma. Ah. préfet kilifa bu la xëy defal da war a def. <clears throat>

bu nawet jotee ba mu taw yoon yëpp ay yàqu boo demee par exemple ni village bu comme Diass mhm. am na benn canal bi ñu doon defar canal ba dafa gudd romb ba euh, dem ba romb route nationale bi mais bañ bañ koy defar dañ ko defar ba mu àgg ci route nationale bi ñu yemale ko fa am la des loo xamante ne ni xar na dëkk bi ba tey jii nii ñaari pàcc mënoo jaare ni traversé ko jaare ni traversé ko ndax canal bi ndax canal bi niñ ko mhm. liggéeyee depuis mën naa ne depuis aéroport bi chantier bi ñu commencé ba léegi. Ah, nga jóge fa nga dem par exemple ci village bu mel ni Kirène. Mhm. village ba taw bu mujj bi paase rek am na benn gox bu fa inondé complètement bu ñuy wax foog ci goxu Kirène. donc yooyu yëpp nag ci seen xëy na peut-être ñàkk natt wala ñàkk calcul ci ne ay dinta ngi fi dëkk. Mhm. war nañu mën a euh, xalaat ci ñoom. ndax seen kaaraange mhm. ëllëg. donc mu nekk loo xamante ne tamit lu metti population bi la. ba léegi bu fekkee ni ngeen toog yàgg na euh, du ñàkk am ngeen benn activité bu ngeen di préparer ngir xay na seen mbir tamit am solution définitivement. xam nga sànq nee naa la population bu yaru la. bu discipliné. Mhm. étape par étape la te ñi ngi ànd ak ay. kilifa yoo xam ne ngeen dëgmal fi mu toll nii. étape bi ñu bi ñu jógee tey jii boo gisee sax ñu gën a kontaan ci plateau bi. Mhm. nee naa la sànq yëf yi ba mu tàmbalee. tekk kaaral bi xamuñu dara ci li ñu xew ñu ñuy yónnee ay bataaxal yuy wane ne état euh, euh, aéroport bi bi ngi tàwweeku dem na ba léegi àgg ci huit cent ak huit mille hectares. Mm-hmm. ca la ñu nag dem ci presse bi wax. ba ñu waxee nag ci la ñu gis ne effectivement ñoom ñu ngi commencé woote ay lël pour waxtaan. Mm-hmm. waaye waxtaan yooyu ci lël yooyu ba léegi dama la jurul dara ba tey. waaw xam nga li tax ma laaj loolu mooy defoon ngeen ne nga ay séminaire. waaye booba tey li ngeen defoon séminaire gouverneur ak préfet ñëpp ñëw fa amul benn document bu ñu signé jox leen ko ndax nekkul ni bu presse bi waxee comme ça débat yi am coow li bari ñu waat leen ngeen toogaanam dina baax rek ba ëllëg mu lii am amaat ci seen rencontre yi nga xam amaat. maanaam daal mel ni ku leen di defal ba ngeen dal ngeen nelaw foofu. man loolu laa ko mën a jàppee parce que nee naa la ñun ba ñu ba ñu xamul te xamule woon dara ci mbir mi. Mhm. ñu demee ci presse bi ñu wax. ci la ñu commencé organiser ay lël ñu yaakaar na lël yi laa naan dañu ci maanaam suñu affaire ciy baax mhm. mais dama ne lañ fa tukkee yëpp ba tey jii gëm nga ni lël bii ngeen di waajal mooy doon euh, seen solution moo ñun suñu solution dañ yaakaar ne président de la république moo ci mën dara te ñu ngi ko koy ñaan bind ngeen ko wala non bind gu mais comme daf yëf yi par la voie hiérarchique la ñi nga xamante ne ñoo à la base mhm. ñu jox leen cër lool ndax ñoo man mii di wax ak ñoo xam nañ ma bu baax a baax comme jox nañ leen cër déglu nañ leen mais la ñu waxoon ba léegi amatuñu benn solution te aéroport baa ngi ubbi am na ci ay yeneen problème yoo xamante ne war nañ ci mën a dem mënaguñu fexe ba yegg ci problème yooyu lañ leen mayoon nag lépp dañ koy jël nag yëkkati lépp ci seeni ay loxo jox ko le président de la république son excellence ñun nag ñu xamal ko ne suñu problème léegi moo ci man dara beneen problème bi nga xamante ne aussi ñu ngi koy xaar moo di ne transfert aéroport bi fële ñu bëri ngi wuuxu di tëb di dal naan ay ñàkk nañu liggéey ak du ñu kii ak mais ñi ñu fekk si nga xam ne ñàkk nañu seen tool nga xam ne fa lañ daan béyee. Hmm. amu ci kenn koo xamante ji ni tenir nañ ci en compte ci moom pour que ñu mën a xalaat ne kat ñii war nañu mën a am emploi. mairie bi sax bàyyi xel loolu xanaa voilà ci mairie bi sax monsieur le maire bi. Hmm. moom actuellement def na formation des jeunes dans les métiers de l' aéroport actuellement. Hmm. def na ci ay ñaar ba ñetti génération yoo xamante ne ni. mën nañ mën nañ fa liggéey tey jii nii. waaye nag ci ñax waxtu yi dégg nañ ci sax ne am na ñoo xamante ne dañuy jógee dinañ leen jëlee ci aéroport loolu loolu xam naa beneen débat lay doon ci mbirum euh, liggéeyum ndaw ñi ak aéroport li mu nar a jur mais tey suñu débat dañ ko axé woon rek ci mbirum foncier bi ña fa dëkkoon ak problème mhm. euh, dama lay bàyyi nga tàggatoo waaleen loo jàpp ni li nga dégg lépp ci plateau bi ci ay problème suuf mhm. loo mooy doon solution définitivement ba Sénégal génn fi mu nekk ñu xaw a wàññi nag coowal suuf bi dama ne li ma ci jàpp rek moo di ne eh, coowal suuf li yëpp benn la féppay métti ndoo waaye nag dama ne mbir dafay toll foo xamante ne nii kii nga xamante ne moo ci mën a addu ba ñëpp ab yaakaar na yëf yi sotti na mhm. mooy le président de la république donc ñu ngi këy ñaan mhm. moom ci wàllu boppam mu dimbali ñu ba lépp loo xamante ne mbirum suuf la ñu waxtaane ko ñu régler ko ba kenn ku ci nekk vraiment me suis Néon néewoon naa ci sama sortie bi passé la population de Boussagnon pour accueillir ouverture aéroport bi à ouvert. maanaam mu kontaan ci lool. Mhm. waaye nag nii situation bi demee nii nii nii. décembre la war doon de. décembre le 7 décembre teeru njiitum réew mi ak vol bi njëkk wàcc foofu. mais bu ñu sañoon ñun ñoo koy teeru parce que ñun ñoo koy da ñoo ko war a dalal. Mhm. ak accueillir ko accueillir Sénégal gépp mhm. waaye nag situation bi mu taxawee nii. ubbite boobu suñ koy dégg sax dañu am njàqare bu rëy rëy. te loolu ba tey jii nii moo tax. Euh, ñu ne encore une fois de plus di leen remercier ci occasion bi nga xamante ne may ngeen ñeen ko tey jii. pour ñu mën a waxtaanee ci li nga xamante ne moo aji ci. waaw ngërëm gi moom daanaka lii mooy taxawaayu DTV ba fi taxawee léegi euh, Sénégal ñëpp xam nañ ne groupe bi lii moo ko tax a jóg dox ci ginnaaw askan wi seen i bëgg-bëgg ginnaaw taxum xibaar gi fexe ba fekk leen ku ci ne fa nga nekk la ngay dund ci problème ñu jëm caa xooli solution loolu ma bi nga xam moo ëmb ñi nekk ay ñi loru ci mbirum aéroport Diass beeg mbirum suuf jafe nga xam mooy Diass ak la ko wër damay daal jox ba tey baara mu tàggatoo baara yooyu itam solution yi manière générale loo jàpp ni bu amee rek ci taxawaay daar daar du ñàkk Sénégal génne fi ndax dañu war a woote benn pencoo gu rëy ay assises xëy na ci mbirum foncier bi donte Ecotel mi ngi fi ñu koy dox boobaak léegi waaye ba tey dara sotteegul loo yaakaar ni mooy pexe jàpp nga ko. waaw liy pexe bi rek mooy que comme ni ko suñu grand frère waxee président mu ngi def kamtilaay kàttanam mm-hmm. ci problème suuf parce que boo xoolee euh, ñi am titre précaire yëpp may nañ leen ñu am ay titre foncier gratuitement mais yooyu boo guddul loxo doo si jot. <coughs> alors problème bi tam Sénégal. ma ngoog parce que ñi nga xam ne guddul loxo tout le ñi ñi ñi ngi nii préfet moo fay ndaw état. Mm-hmm. mais préfet dafa war a ubbi buntam wax ak askan wi mais boo xoolee léegi Sénégal ñëpp dañuy accès si président. lu waral loolu mooy. ça veut que scène bi moo doxul. Mm-hmm. Mm-hmm. mais mënoo ñëw ñu jox la carburant jox la logement di la fay salaire. pour nga saytu askan wi kenn mënu laa gis kenn mënu laa dégg. Mhm. ku la woo du la jot. ko booy woo nit ñi ni mu privé nga leen di wooye mhm. c'est pas normal. waay waay waay état du Sénégal ni muy doxee baaxul. Mhm, askan wi ñoo leen fal askan wi ñoo leen di fay. mu mel ni kon loolu. appel la booy mu réew mi nu fal. muy ah, bu lay woo moom appel privé la lay wooyee. député bi noonu keneen noonu keneen noonu keneen noonu. Mhm. kon lépp dañ koy tuur si bopp président Macky Sall. voilà ci seen mbirum bi lu ngeen nar a def ci étape. par rapport ak li ngeen wax ndax procès am na waa ji yoon wa koo war koo teg loxo ba tey mi ngi tëdd këram ni nga ko waxee sàng loolu métti na leen lu ngeen war a def ci étape bi ñëw. waaw étape bi ñëw mooy dañuy xaar ba jot euh, suñu jugement. bu mhm. tribunal ubbee semaine bi semaine prochaine. Mhm. nañ jël dem suñu jugement dox yi nga ci war a dox ñu jëli ko këram. jàpp ko baa boobu bu ko yoon mënta jàpp ñu jox ñu digal ñun ñu def jàpp ko ah déedéet ñëw ko <laughs> loolu moom du seen wareef ah <laughs> non mais comme bu ko yoon nanguwut a jàpp ah, ah. nañ ñu jox ndigal uh-huh. nañu fu ngeen gis Babacar Fall indi leen ko déedéet waay bu ko uh-huh. defee ñun dinañ def suñuy gës daal yéen daal jàpp ngeen daal indi ko jébbal ko état na ko yoon jëfee da ko yoon jëfee voilà li si tege mooy mm-hmm. suñu site bi dañuy jublu si mettre ko en valeur parce que nit ñi sonn nañ ñii dañ leen di abal fii ñi ñu ngi leen di génne location. Mhm. nit ñi daal am nañu difficulté mais li bëgg mooy président Macky Sall nañu recevoir. Mhm. déposé nañ ko demande audience. depuis bi problème bi amee ba léegi. donte def na si jéego. Mhm. mais dañoo bëgg a toog ak moom. parce que il faut ñu jàppale aussi cas sociaux yi dafa bëri. première dame servir de Sénégal. ñu ngi koy woo aussi parce que jigéen ñi veuve yi bëri nañ fa. voilà y' a plus yoo xam ne ay veuve lañ. seeni jëkkër dee nañ ay doom yu ndaw lañ yor amatuñu dara. voilà donc il faut que daal cas social bi bëri na gàddaay nañ def ñu gaawee daal mhm. te Mbaye Fall liy dalal xel borom yi ñu dugal ko si kaso bi parce que wax jooju moo xoon dafa des si bopp nit ñi ba léegi ba léegi gëmuñu ne Mbaye Fall dina dugg si kaso bi voilà damay bàyyi waa Tivaouane Peulh ñu tàggoo ma jeexale ak Alioune Badara ci lu gàtt Tivaouane Peulh euh, looy tàggatoo ci lu gàtt la jàpp mooy solution parce que bu gàttee wax gi du neex waaw mais nag dañuy am problème temps waaw <laughs> euh, ma mën wax moom mooy ñun mhm.

équipe la rek gis nga équipe nationale bu mu jaaxlee dañuy changé. Hmm. remplacé wu ñëw rek le problème bi. da jàpp ni kon. administration bi gars yi doxul waaw ñi fi nekk administration bu ñu fubalul. mais ñu sanctionné leen génne leen andi problème bi dafa yomb. merci beaucoup waa Tivaouane Peulh. ak Babacar Badji jërëjëf Tivaouane Peulh yëpp. Badara rapidement Alioune. voilà euh, euh, quelques secondes. man li ma ciy kii rek mooy solution yi daal si différents aspects la. en général mhm. volet judiciaire bi. wax nañ ko sànq. Mhm. war nañu évacuer les dossiers. décision yi ñu exécuté ko. bu mhm. ma li gàddaay SCAT Afrique ak ñeneen ak ñeneen. yaatu na Sénégal Agir 3 milliards ñu war def des dispositions nécessaires pour ñoom jot. Mhm. muy benn. beneen aspect de procédure administrative yi ça pose problème Seck wax na ko. Uh-huh. ah monsieur Badji aussi la même chose. donc loolu am na ay jumtukaay yu si état war a jóg te loolu am. malheureusement nag le problème c'est où moi il qu'il dañ def barrières entre le président et le peuple Là, je damay le président bi parce que pourquoi parce que mhm. marche bi ñu est sànq ñu ko le 29 mhm. le 29 euh, septembre mais le 4 avril le 4 euh, octobre mhm. conseil des ministres le président dit que tout doux.

danaka mom mi jité man da baña am yenn coono yu métti yi ci nag état buñ ko waxé du kenn ko yanu mais l'ensemble ensemble la boo xam te bi ku ne ak sa cër bi nga yor diko doxal kon ñu ñëpp def sen rôle Sénégal jëm kanam ndax kaw yag na métti nak askan bi aussi askan bi aussi def seen wàllu am ñu ben culture moy lan mhm. dañuy tok problème am na toog déedéet problème bu togué da ngay dem vers l'autorité mais mhm. avec des solutions moo tax xam naa loolu du fi xaj xamna naa beneen débat inshallah sur la loi 2016 loolu dañ ci ñëwaat incha allah vraiment ni leen di gërëm bu baaxa baax a baax leen di gërëm bu baax di gërëmaat bu baax ki nga xam rek mooy suñuy invité teewoon fi tey bokk na ci ni Alioune Badara Gueye mi jeexal sang mooy président euh, fédération nationale des victimes des promoteurs immobiliers ndax noonu tam gërëmaat bu baax Baara Sow bi nga xam moo représenté woon collectif euh, Gàddaay di vice président bi aussi gërëm ko bu baax gërëmaat bu baax tam waa Jassam ak Mbaye Seck moom itam gërëmaat bu baax tam ki nga xam moo di Babacar euh, Badji Babacar Bakari Badji voilà Bakari Badji kon jaajëf xam naa Bakari ak Babacar soriwunu ah, <laughs> jaajëf tabarakàllah gërëmaat bu baax waa régie gërëmaat bu baax mbooleem caméraman nekkoon ci liggéey bi waa son la ci aju gërëm ñu doon bàyyi xel suñuy programme ci ci DTV ak ñi woote dugg ak ñi woote ak siw ñu ngi boole ñëpp leen jégalu rendez-vous incha allah ajuma bi ñëw ci kattanu suñu borom baneen waxtaan ak ñeen invité ñu wéy di ànd ak programme DTV jàngeen jëf merci mes invités